monsieur le ministre wax nañ fii problème d' exonération fiscale nañu xam ne pour la création des entreprises pour les cinq premières années APIX day exonérer les entreprises yi nga xam ne ay entreprises sénégalaises lañ ñi nga xam ne ñoom de leen faciliter leur financement donc lu ñuy wax ci côté boobu yëpp nekk de la manipulation et de la pure manipulation. beneen affaire bi may wax monsieur le ministre il est important de le dire pour revenir sur le budget monsieur le ministre moi personnellement je voterai ce budget car il est fondé sur des innovations majeures à savoir le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation et le fonds intergénérationnel témoigne à suffisance que le président Macky Sall la jeunesse au cœur de sa vision politique pour un Sénégal émergent. Monsieur le ministre, je voterai ce budget parce qu'il a pris en compte, qu'il a pris en compte l'emploi des jeunes à travers le programme Xëyu Ndaw pour un budget de 150 milliards pour l'année 2023. Monsieur le ministre, je voterai ce budget car il a pris en compte la formation et l'entrepreneuriat des jeunes parce que le président a bien compris que pour développer le Sénégal, il faut miser sur la jeunesse et les femmes. Et avec le programme, avec la DER, FFJ, je pense que le président de la République a investi beaucoup d'argent. Et l'euro, jeunesse du Sankernago, Djigéli aussi, Santengengo. Monsieur le ministre, nous voterons ce budget car il a aussi pris en compte les travaux d'achèvement de l'université Ibadé Tcham de Thiès, de l'université Hassan de Jigenshore de l'université Alioune Diop de Bambey, mais particulièrement les 18 000 lits qui sont en cours de construction à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est pourquoi il est extrêmement important de voter ce budget et je voterai à 100% ce budget et dinaa continuer ko mën a voter. ku voté wul budget bi nag damay jàpp ne askanu Sénégal taxul ma jóg. e pourtant bu ñu dem élection législative ci condition yu métti lañ demee. muy taw ngay gis ay maire ay pa yor ay parapluie pour choisir le représentant à l'Assemblée nationale. indiwul leen fii pour ngay bañ a voté budget bi parce que pour bañ a voté budget bi xañ la wala buggoo wàccee méttitu bi nekk ci askan bi te loolu ñun mérité wuñ ko nous devons mériter. la confiance que le peuple sénégalais nous a confiée pour que ñu ñëw fii représenté leen war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax askan woowu nag ñu ngi ñuy seetaan adduna ñu ngi ñuy seetaan suñu taxawaay su suñu comportement war nañ ko war nañ ko mën a xoolaat donc loolu nag chaque député ici a une responsabilité individuelle mais les 165 aussi ont une responsabilité collective pour bâtir le Sénégal et le président Macky Sall est en train de bâtir Personne ne pourra déstabiliser le Sénégal parce que vous êtes trop petit pour déstabiliser le Sénégal.